Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay yi mboolem yéenekaay yu bëree bëri tey jii xëy nañu daal di àddu jëmale ci kàddu yu dëgër yi nga xam ne rek moom la fàddilu koy taayakat yi jëmale ko ci wàllu réduction des comptes yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne fi mu toll nii moom fàddilu kaytaay jamono ji nag taxaw na temm ngir bëgg état bu Sénégal sóob loxoom ci liggéey bi nga xam ne rek moo jëm ci tegaat loxo koppar yi ñu luubal fii ci réewu Sénégal amul benn dërëm bu ñu leen war a bàyyee ñoom ñu ko xamle ginnaaw bi ñuy amal ay càmbar jëmale ko ci yorin bi nga xam ne rek noonee la ñu fi nekkoon yore réew Sénégal jëm ci ab mission d'audit boo xam ne rek directeur général bu caisse de dépôt et de consignation daal koy amal ma ngay fësal naqaru xolam ci ni ñu caxat-caxatee alalu askan wi Vox Populi daal dina lu jëm ci wàllu réduction des comptes kay nag kii di Fadilou Keita ma ngay xam ne naqaru xol bi nga xam ne rek am na ko ci ñi nga xam ne ñoo jiite woon bopp réew Sénégal moom directeur général bu caisse de dépôt et de consignation nag ma ngay xam ne ne mbir yi du yomb benn yoon ci ñi nga xam ne rek ñoo far faree ci kujje gi du ñu dawal benn yërmande état bu Sénégal fi mu toll nii dafa war a def liggéeyam ñii nga xam ne rek ñoom ñoo fi nekkoon dañoo war a jaar ak ñoom fu méttee métti bu ko defee loolee dina servir exemple ci génération bi ñëw amul benn dërëm boo xam ne rek war nañu leen koo bàyyee lépp la ñu war a nanguwaat ñoom ñi jiite woon réew mi nag nekkee fi woon lu dul di caxat-caxatee alalu askan wi ak di ko yàqatee te loolee nag waruñu koo seetaan 24 heures yëglekaay nag Fadilou Keita kay ji nag ma ngay doxee doxinu bulldozer li mu bëgg rek moo ñu ci kanamu yoon ba tegaat xaalis bi nga xam ne rek moom la ñu luubal ci taabal ji ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ni bu xoolee fépp rek dafay am ko naqari lool ci ay dil xam ne rek doon nañ ko taxawal ak ay piège yoo xam ne rek dafa gàcceel réewum Sénégal ni ñu yàqate yaxeet naa tax ba état bu yees bi nag waru leen a may dara dañoo war a dal ci seen kaw traduire leen ñoom ñëpp ci kanamu yoon bu ko defee ñu mën a goqiwaat milliards yi nga xam ne rek moom la ñu lekkal askanu Sénégal source a ne ko fi mu toll nii kii di Fadilou Keita ma ngay xambu taal bi évidence yëglekaay ne Fadilou Keita jamono ji nag ma ngay woo état bu Sénégal ngir ñu bañ a am benn yërmande jëmale ko ci nguurug Macky Sall gi fi nekkoon ñoom ñëpp nañu leen jaarale ci kanamu yoon bu ko defee ñu xam ne alalu mbooloo ba fa la sant le quotidien yëglekaay xëyee tey ji nag ci ni ñu war a intégré waatee nag lu ñeel délégué syndicaux yi nga xam ne rek ñoom la ñu dàqee woon ca CBAO kërug banque googee nag fi mu toll nii fas yéene naa attaqué décision boobee nga xam ne moo tukkee ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu travail des ba tey ci yëglekaay boobee addu jëfandikoo ci wàllu emploi bi fii ci réew Sénégal statistique yi nga xam ne rek moom la ñu fësal ci liggéey ba ñu doon amal ñeel boobee rapport la mu xam ne rek bokk na ci 579 ci wàllu emploi nag dañu ko supprimer lu toll ci 123 établissement ñu daal leen di tëj nag ci atum 2023 lu jëm ci wàllu BTP yi wàllu commerce ak wàllu restauration yi nag secteur yooyee nag moom la gën a laal Vox Populi fellu ko ne chiffres yi nga xam ne rek moom la ñu fësal jëmale ko ci wàllum xëy mi fii ci réewu Sénégal fanweeri junni yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent ci ay CDD bu dee ci góor ñi nag ñu ngi toll ci ñaar fukki junni ak ñett yu toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent bu dee ci jigéen ñi nag toll na ci juróom-ñaari junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom bu fekkente ne lu jëm ci contrat CD yi nag lu toll ci 19 mille 159 rek la ñu ci nemmeeku te góor ñi nag toll nañ ci 12 mille 925 jigéen ñi toll ci 6 mille 234 contrat yi nga xam ne rek moom la ñu jëmalee ci wàllu stage nag 3 mille 856 ci la toll 3 mille 230 yi nag ay contrat de travail saisonnier la trois mille seize yi naka di ay contrat de travail temporaire juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay ñaxtu yi nga xam ne rek moom la collectif yi di amal ñeen fukk ak ñaari képp lañ ciy saafara rapport bi di fësal ne nag am na lu toll ci mille cent seize ci ay déclaration accident de travail ak ay maladie professionnelle yoo xam ne rek jot na caa génnee addu jëmale ci nomination yi nga xam ne rek ci la Walf Quotidien xëy addu niki tey jii nag ma ngay xam ne ne yenn ci ay poste stratégique yi nga xam ne rek dañu koo jox ci ay ndaw loolee nag Paris Osé la ko dippee jëmale ko ci projet bu état bu Sénégal nomination yooye nga xam ne rek jur na coow boobaak léegi bokk na ci doomi jëwriñ ji ñu dénk wàllu jëflante biti réew nag porte parole bu présidence moom ma nga cay indi ay leeral bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Ousseynou Ly moom moomee du yaayam moo ko tabb ci poste boobee mu nekk waaye ñu ngi ko nommé ci artisanat ndax ay compétence am Bakary Domingo Mané di ko feelu ne man daal lii nga xam ne rek moom la ñu dippee népotisme daal man gisuma ko ci nomination yooye nag ndax proximité ci ay autorité yoo xam ne rek dañoo bokk benn gouvernement man gisuma ci benn jafe-jafe te bu fekkente ne doomam joojee am na compétence nag ci li ñu koy xaar moom mën naa doon ministre yaayam it mën naa doon ministre li am solo rek mooy nañu liggéeyal askan wi yéenekaay bi ne ak lum ci mënti doon daal kii di Pape Alé Niang ma ngay avertir Bassirou Diomaye Faye nag ma ngi koy xamal daal ci biir yëglekaay yu bëree bëri ne ko benn solution rek daal laa gis ne moo mën a saafara coow li mooy wax dëgg askan wi ndax lu ko moy rek li woon rek moom la ñu fiy nemmeekuwaat tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak mercato bi nga xam ne rek Marseille jamono ji nag ma ngay rejeté première offre bu Crystal Palace bi nga xam ne rek la ñu amal jëmale ko ci Ismaïla Sarr stade yëglekaay ne ko Lamine Camara ak Ismaïla Sarr kay jamono ji dañuy xaar addu jëmale ci wàllu làmb ji ginnaaw ndam li nga xam ne rek am na ko ci kaw tafaatin moom Balla gay 2 ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi ne moom xamoon na ne nag tafaatin musul pare ngir xeex ak moom waaye jamono ji nag ginnaaw bi mu ko dumaa duma yu metti ba daan ko nag fi mu toll nii nag moom Aziz Ndiaye li mu gis rek mooy combat bi logique jamono ji nag mooy diggante Balla gay 2 ak Eumeu Sène mbokk yi li yëgënoon a fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm